léegi léegi léegi dafa am c'est ça ñi ma xam temps baa ngi dem ñi ma xam xam ne du ma bool te du ma jaay bore du ma jaay suus mais mais mais temps baa ngi dem temps baa ngi dem dama bëgg ñu waxtaan ay waxtaan yu am solo ñi ñi nekk ci page ah officielle bu ITV mën ngeen di partager di commenter mën a bokk ci teranga yi euh, diggante Wally Seck ak euh, ki nga xam ne moom moo di Pawlish man du ma wax ne juboo nañu man du ma wax ne juboo nañu parce que ñoom ñaar kenn ku ci nekk boo ubbiwoon sa xolu morom da nga gis cofeel da ci ciy gis mbëggeel mhm. loolu moo mën a seede la du du du xuloo man euh, réeroo la réeroo boo xam ne doom dañoo foo kii réeroo la boo xamante ni si kenn ku ci nekk di wër sa moroom comme ni mu dee woon ak maam aadama ak maam Awa réeroo la rek bu daje am mhm. Pawlish euh, li la dal sa digganteeg waal yi mbëggeel la bu jul bu jur frustration tey yàlla dogal démb nga tasanteeg sa frère sa papa comme ni ko Waly waxee kan moo dox loolu lépp ba daje bi am démb sa diggante ak Waly ñaari doomu aadama la yu mhm. bëgg aw ba deg sànne quinze mhm. quinze heures ba six heures ba six heures ak Sambay ñu may wër Sanex aw Balde croisé rond-point cité góor gi aw Balde ma foo nekk ma ne ko maa ngi nii sa woto mu ma nañu daje rond-point ko ñu waar ñu waxtaan dama laa soxla ma ñëw Sanex aw Balde ànd Sanex ne ma wàcc sa woto ma wàcc sa woto Sanex dugg jël taxi ñu ñëw dugg ci oto aw Balde Sanex aw Balde jël otoom jiituñu woo soxna. mosoon na wàcc man nag saane na ma kaay nga ma ñu ànd ñu ànd tax bi jaar ba ko mhm. ma taxawal aw bale na ma taxawal ma yégal ci kaw est-ce que noonu lañ la yóbboo ba tey waxuñu la kër waali lañ jëm barke sëñ Bamba ma yéeg ci kaw ma yéeg gis fa looloo xam ne damaa jàngal àddina gis fa loo xam ne mbaax ak bëgg nit rek moo mën a def lii ci àddina ndax seex jabar ju baax lu am solo la ci àddina cheikh bu neexoon waale bi soxna bu neexoon dama jubóo waale ba at yi tukki tukki na parce nag jabar la ñooy tëdd ñooy fanaan ñooy lekkandoo ñooy naanandoo jabar du ci rafet du ci joxe lekk ca xool la ci yërmande en plus bëgg koo xam ne dafa a bëgg man cheikh damaa jërë bëgg parce que nit ko honnête laa ci doomu aadama nit ko fonk nit laa nit ko mën a sama nit laa mën mhm. cheikh 2009 ba 2024 ba tey ma ànd ak waale sama tàng mu sa tegu ci boîte te nag il est temps sama ta toll naa moment boo xam ne ku nekk bëgg daani wala ku nekk bëgg siiw mhm. tey fu ma demoon dinañ ma waay mais ak i wayam ak fan koy wayee ak ni ma koy yëgee ma ni kenn laa xam ci kooku lay dem te moom laa miin moo ma def ni ma ma xa ñëkk a yóbbu ma ñëkk a may kër moo ma ñëkk a oto moo ma ñëkk a dénk ay millions suñu ànd du àndu ñàkk fayda du ànd yoo xam ne ànd cofante la ànd xol a la sama jabar tamit def ci róor bu rafet rafet ñu soxna jaara kooku mënu tamoon parce que li ma moom mooy maamam Fatou Laay mooy yaayam kooku mënta bon. sosoon na ne ma ak lu mu mënti dem waali sa xarit la. Mhm. loo mën a am loo mën a xew waali sa xarit la. Mhm. loo mën ak loo mën a am ci àddina si waali sequ leen yéen naan ngénte sequ leen yéen takk seq ngeen demalante ak ñëwalante muy lu baax xarit ay xarit ngeen ñaar. Mhm. kon waali sa mag la sa kilifa la. soo ko tooñee bul am kersa dem ne ko baal ma. dëgg la kersa ne ko maa ngi te wax jooju wax moom laa validé moom laay nangu parce que sama jabar la. waali <laughs> yërmande gi mu am ci man bu ko àdduna bépp meloon ni am am ko ci man nekk naa milliardaire <laughs> dëgg la cër bi ma jox bu ma ko joxoon cër bi ma ko mën naa jiite jumaa ndax cër la ni ma fonkee billaahi wallaahi waali buy xool da xam ne kii mbëgte la xool ak man dëgg naa dëgg bu may way xam ne kii xol la xool la ma wayee hmm. bëgg la ma waaye man ni ma delloo ko so man waaye laa bëgg yow wér na barke alxuraanu karim hmm. lu coow li rëy rëy yëpp mosu wax lu ñaaw. ni ma mel moo ma ko def. déedéet lii laa doon sóor suba. Mm-hmm. lii laa doon bañ suba. mu taaj ba te ku ma taaj bëgg ma mu rus xam nga lu ma lu ma sëggaloo mm-hmm. kersa ak yërmande gi ma am ci moom ak ni ma ni ma ko fonk ak ni ma accueillir waaye dafa ju accueillir man ne kuy accueillir ku jugee màkk. allahu akbar dafa jug taxaw kottu ma. loo yëg. xool bu sedd. Mm-hmm. muy mel ne ma ban ne ma sa soxna am na doom kontaan nga ma kontaan moo ñëw sama diggante ba ak waa di démb. mu taxaw ma fu ma nit taxaw ba ma ñëpp a dàqee ba ma ñëpp a badaxee ba ma ñëpp a bëmaxee moo ñëw récupéré ma togg ma teg ma ci teg ma ci kan oto ak lu fay rëy rëy rëy rëy waaye du def lu ma yëgul oto maa ci yéeg maay nekk première nit ku yëg lu ne dégg na ma ko te sàcc ma ko lekk ma ko naanu ma ko te lii may wax ni amaan na keneen ko waaye man maa baax man mi waxee ko te moom mosu ko waxee dëgg la waaye taxaw xool ko li ma ko cité moo tax mu cité waat ko waaye li ma defal lépp fàtte bi ko sax bariwul li ma defoon lépp fàtte ko. dëgg la. moo ma njëkk dëggal déggal daane. moo ma njëkk a xamal àddina. moo ma njëkk a wax ni li àdduna ni lay demee nii lay doxee ne ma tey loo am bëgg naa ko loo ñàkk bëgg naa la parce que li ma woon moom moo tax ma bëgg la. te dama am coobu yërmande Cheikh Sarr bu ma ëpp parce que cofe laa dem ak yërmande mënumaa gis dóor ci kaw suuf nit nit ku ko gën a baax. moo tax ci ñi doon ci wax lu bon. yii dañ ciy ruus. non dañuy dee li tax ñuy dee parce que man damay ñëw li tax ma ñëw mooy sama alal la. maa ko moom. dëgg la. xam moom sa àll dafa neex waale bu reetaanee xam naa su meree xam naa bu kontaanee xam naa. dëgg naa bu triste xam naa bu banqué xam naa bu xiifee xam naa parce que loolu ànd la parce que ànd bu sincère sama diggante lekk xam naa ne loolu du mun na tëdd ba guddi ma jox ko soow te da koy naan. dëgg la xam ne <coughs> la ku jox xaaral parce que li ñuy wax dafa ah, waxi lu fula la kaay waxtaan fula la xaaral tali bi. gisee ko Cheikh ànd lañ àndee man ak moom ànd naw leen. gisee di wax. moom doom moom amul naw leen bu moo tax kenn baax bëgg ko yaa ngi ko mën a ànd man ak moom. man at Saraga Ndiaye kenn maa mun a wax dara na maa njëkk dégg daaw rek maa njëkk dégg daal Massa fu mu taxaw taxaw naa fa ak ni ngay taxawee yow taxawaay bi ni ngay taxawee taxawaay boobu moo baaxoon yaa ngi ko mën a Cheikh. na yàlla baax. ànd xarit lañ àndee. dëgg la ki doon ci wax lu ñaaw des fois ma def vidéo miniru miniru xaritam la Thiès. Mhm. da ciy commentaire rafet rafet. dëgg la yal na ngeen jubóo. amiin waay. tubarka xam nga loolu xol la. Mhm. am na ñuy commentaire yàlla sa diggante yàqu. am na ñuy commentaire yow baaxoo jàng ma sama jabar gën a jàng moo dàqal di commentaire daa ma minute bi kan la ma ne ko minute bi Thiès la dëkk mu ne moom kii mi ngi ci wax rafet te loolu xol la. dëgg la. Cheikh moo gis naa jabaram gis naa ni jabaram lu rafet rek lay gis. mooy surtout lu rafet lay lay wax. jabar jabar ju baax dafa la jabar te sama xaalis dama fa ma xam fi ma koy denc xam fi ma ko war a def mhm. loolu jamono ju baax koy am musuma ni Pawlish defal ma lii ay or ak i takkaay lu ma war a man lu ma a jëndal jëndal na ma ko ma takk ko man te am na ci ñoo xam ne pour wala ni Sénégal daf ci bëri ñoo xam ne bëgguñu lu rafet bëgguñu lu baax maanaam a chaque fois li ñuy gën di bëgg moom mooy ay nit ay nit di xuloo ay nit di dagg sante ay nit di ta kii xoolal même ba ci xoolal dama lay wax rek dama lay wax rek même ba ci man ak Aba clash bi ki nga xam ni nit ñi ñoo foo da ngay gis nit ku lay woo di la jéem a jañ te xamuñu ne mm-hmm. Abba bu nekkee RFM man ma nekk première première man ma nekk xolal man ma nekk i rajo est-ce que xam nga ni su ma wàccee sama téléphone damay jël téléphone woo Aba wala Aba day jël téléphone am woo ma ñu waxtaan suñu biir kafande mm-hmm. fàttali ko waatul pour wane ni sénégalais boo deful ndànk dañ lay dañ ci nit ba ba da ba da ngay yow naan da xam ni sénégalais yi da ci bëri ñoo xam ne dañoo dañoo foo da ci bëri ñoo xam ne bëgguñu jàmm tey jii même gise man du wax juboo man ba tey du wax Pawlish ak Wally Seck juboo nañu déedéet mm-hmm. gise nañu laa wax gise bi Pawlish gise euh, am na ñoo xam ne seen xol bi dafa naqar la ñu yendoo ma duggee soirée démb xool ñoom ñi seen xool seen i melokaan mhm. ma xool seen i melokaan ay retaan damaa jàpp ñi ngi nekk ci soirée ba seen xol bi tàng dëgg takk ay verre ñi sol ay yére olof ñi ay ay may ma xool ñu mhm. am dañ jàppal ma ne ñu doon ay <laughs> jaabatu mhm. ay tur ay <laughs> bi daw lu nga ci dégg est-ce que mm-hmm. nga xam ni waale xol lañ àndee képp ku doon jox wax ju ñaaw mm-hmm. yow sa add addo war na laa yee tey dëgg la ñaar ni bañu ànd fekke woo ko wallaahi dëgg la bañu bëggante fekke woo ko mm-hmm. bañu xamante a li seex bañu xamante fekke woo ko ba mais mais démb xaw na laa rey la ilaha illallah démb waale xaw na laa rey sur scène démb soo amoon ciseau damay dagg yokkal leen ma yokkal leen ma lii ma dégg ko yokku leen yokk leen lii ma dégg ko bàyyi Cheikh yi loolu daa am fenn bàyyi Mouhamed bàyyi.